revue de presse bi ñoo ngi ci ànd ak volcano am ngeen jafe-jafe yi nguur nag dafa tàmbalee sonal askanu réewum Sénégal daaxle jeex na ci góor ñi ak volcano volcano nee na saraax ci réew mi boisson la boo xam ne aphrodisiaque la baax lool ci góor goo xam ne da ngay gaaw a yëg sa bopp waaye tam performance moom daanaka zéro formule la boo xam ni doo ko gis feneen waaye tam ingrédients yoo xam ni naturel la volcano nekk seen allié bi gën ci biir néegu sëy a kattan ca lal ba dana tax bëgg-bëgg xëy yaay bañ gaaw a yëg sa bopp gi volcano da koy xeex waaye tam ñi nga xam ne ñoo am jafe-jafey jur volcano day mooy seen saafara da ngeen di yëngal bouteille bi jël benn dose benn waxtu laataa ngeen di séq te bu ngeen ko ñemee xam ne Angleterre du pomme de terre boisson cent pour cent naturel la amul additif amul colorant amul effet secondaire te mënta wàññi dara seen wér-gu-yaram ay chimiste ñoo ko saytu liggéey ko ci laboratoire mën a essayé leen volcano boisson aphrodisiaque la boo xam ne naan dégg jàmm laa ko dippee ngir nga mën def traitement boo xam ne mukk jafe-jafe yi ne kay da koy dégg rek ñeenti bouteille ngay daal di jënd te boo ko jëndee tàqalikoo jafe-jafe yi nguur a fa yàllaa eh. ak volcano kër gi neex xumbute dagan njaboot gi barke ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéene kay ñenn ci gaynde yu équipe nationale bu Sénégal le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñii nag seenu ëllëg ci des ca championnat ba ñu nekk wóoragul dara maanaam saison bi ñu nekk bu jeexee mën nañoo ànd ak seeni club relégué maanaam wàcc dem ca deuxième division compétition ba bu dee ñaari doomu Sénégal yi nekk ca Nottingham Forest muy Cheikhou Kouyaté ak Moussa Niakhaté ñoom seen toogaay baaxul dara naam jamono ji may wax ak yéen bu fi Premier League bi yemoon du ñu wàcce waaye kat bu ñu jëmbatut ful la soo moytuwul bu saison bi jeexee dinañu relégué maanaam dinañu wàcce dem ca championship ba bu dee muuri jëw ànd ak waa Clermont ba ca Bamba jee ànd ak waa jamono ji bu fi Ligue 1 bu France yemoon dañuy wàcce ndax kat Clermont moo jël jël ndaare Lorient jël avant ndaare kon ñoom bu fi saison bi yemoon dañuy wàcc bu dee Metz ànd ak doomu Sénégal ya fa nekk bokk na ci Lamine Camara ñoom naam jamono ji bu fi saison bi yemoon duñu wàcc dañuy dem barage maanaam dañuy demaat nattaat seen doole ngir mën a des ci Ligue 1 bi waaye bu ñu jëmbatut fulla ñoom tamit saison bi ñu nekk bu jeexee mën nañoo relégué maanaam mën nañoo wàcc dem ci deuxième division bu France kon nag doomu Sénégal yi seen toogaay béggandiwul dara bu dee Pape Alassane Gueye nekk ci olympique bu Marseille moom keroog këlëbam da doon jàkkaarloo ak Lens muy dimanche bi weesu match boobee nag Pape Alassane Gueye dafa woo ay dëkkandoowam ñu bari wutal leen bi ñu ñëw ca Vélodrome seetaan si ko moom Pape Alassane Gueye dëkkul ca Marseille waaye ay xaritam ak i àndandoowam law woo ngir ñu ñëw seetaan ko yàlla dimbali ko mu doxal ca match boobe dugal ca ab bit bi match bi jeexee nag ñooñee mu woowoon di ay xaritam ak i àndandoowam wax nañu ci moom Gueye royukaay dëgg la ku mata roy la te ñun xale yi dañoo war a roy ci moom muy Pape Alassane Gueye journal bi tamit ñëw na ci Liga e-sport bi tey jii foofee ca Espagne nag Real de Madrid mën naa dégg daali maanaam nekk champion li ko waral moo di bu 14h15 jotee Real de Madrid day dalal Cadiz su amee ndam ca match boobee Barcelone jàkkaarloo ak Girona Girona am ndam ci kaw Barcelone Real de Madrid mën naa dégg daali waaye su fekkee loolee amul nag Real de Madrid dina xaar beneen journée ngir mu mën a daali su amee ndam loolee la journal bi le journal bi tamit fàttewul Ligue 1 bu Sénégal tey jii la ñuy door vingt-deuxième journée bi maanaam ñaar fukk ak ñaareelu bëccëg bi ñaari match képp nag la ñuy xaar jàmbaar war na jàkkaarloo ak US Ouakam Dakar Sacré-Cœur wala jàkkaarloo ak La Linguère bu Saint-Louis suba nag la ñuy xaar choc bu mag ci Ligue bu Sénégal Jaraaf mooy jàkkaarloo ak Tëngéej football club match boobee suba la waa Tëngéej nag ànd ak Cheikh Gueye mi leen di tàggat suñu amee ndam ca match boobee dinañu def jéego bu ama am solo ngir jël Ligue 1 bu Sénégal suba la nag muy choc bu rëy boo xam ne Sénégal yépp a ngi koy xaar mu soxal Ligue 1 bu Sénégal Tëngéej mooy jàkkaarloo ak jaraaf. ñu jugee stade yéenekaay dem group Futur média fekk fa record yéenekaay moom choc bi ñuy xaar suba ci Ligue 1 bu Sénégal soxal vingt-deuxième journée maanaam ñaar fukk ak ñaari lu bëccëg la fësal ca xët wu njëkk wa jaraaf mooy jàkkaarloo ak Tëngéej football club choc bu mitti la nag waaye bëgg-bëgg yi dañoo ak moom bëgg-bëgg bi ñu am moo di am ndam ba noppi sànni karawaas bi ngir mën a dégg daali ci Ligue 1 bu Sénégal bu dee waa jaraaf mi nekk ci ñaareelu place bi ñoom li ñu bëgg moo di am ndam ba noppi gën a deferaat seen toogaay ci deuxième place bi ba noppi di wéy di am yaakaar ngir jël championnat bu Sénégal suba la nag incha allah kon gaa ñi xaar leen ko journal bi tamit ñëw na ci Saudi Pro League bi démb doomu Sénégal bi ñu naan Kalidou Koulibaly ànd ak clubam di Al altaawoon lañ doon jàkkaar lool gañe ko ñetti bal ci dara moom Kalidou Koulibaly doxal na ca match boobee këlëbam am ndam lu ama am solo bu dee waa Al Nasr ànd ak ñancoo Sadio Mané ñoom tey jii la ñuy football bu 18h jotee Al Wehda la ñuy jàkkaar lool li mu bëgg moo di départ titulaire doxal ca match boobee dugal treizième bitam maanaam fukk ak ñetteelu bitam ca Saudi Pro League ba bu dee Pape Matar Sarr ànd ak waa Tottenham ñoom suba Liverpool bu yogoon club la ñu war a jàkkaar Pape Matar Sarr li mu bëgg moo di doxal ca match boobee jàkkaarloo ak waa Liverpool defente ak ñoom loolee la surnal bii di record yéene kay xamle journal bi tamit fàttewul lamb ji suba incha allah ñoo ngi xaar lamb ju nar a ca arène nationale Sa Thiès mooy jàkkaarloo ak Eumeu Sène Sa Thiès nag dafa ñëw ngir fayul magam di Balla gay numéro 2 ndax Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon laaj bi samp ci commentaire yi moo di Eumeu Sène ndax day ñëw dëggal boppam wan Balla na ko mala mën mën sa wala rakk ji day ñëw fayul magam loolu mooy laaj bi samp ci commentaire yi kon gaa ñi maa ngi leen di xaar ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport yogoon club mi tàggat Liverpool le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa doomu Allemagne bi nag dafa mer ba futu merewul kenn wala merewul ñenn ñu dul waa TNT Sport TNT Sport nag bépp match bu am ci Premier League bi ñoom ño koy filmer teg ko képp kuy wone match boobee ci ñoom nga koy jëlee ñoom ñooñee nag la yogoon club mere li tax mu mere leen moo di nee na ni ñuy programmer match yi baaxul dara ndax dañuy bëgg équipe yu mag yépp ñu wane seeni match te loolee nag baaxul loolu moo tax ñuy gis match samdi di gis match alxames nee na da ngay football alxames ci guddi samedi midi nga football match nee na loolee baaxul ci footballkat yi day rey footballkat yi te loolee nag li ñuy bëgg moo di ñépp seetaan match yu mag yi kon li ñuy def baaxul ci footballkat yi waaye firndeel di saison bii ñu nekk benn club bu Angleterre demul demi-finale Ligue des champions waaye tamit demuñu demi-finale Ligue Europa loolu moo ko waral loolu baaxul ci joueurs yi baaxul ci club yi waaye man yogoon club file ak maa ngi fii ci Angleterre dootuma seetaan télé boobee di TNT TV ndax dama leen mere loolee la doomu Allemagne bi xamle Pep Guardiola tamit mi ngi ci journal bi moom mooy tàggat Manchester City tey nag équipe nationale bu Angleterre lay ñaax ngir ñu bañ a xaddi nee na leen xool leen ci ñun waa Manchester City ndax mën Manchester City yàgg naa muñ lool rawatina ci Ligue des champions yàgg na ci topp dem ba ci demi-finale lu yàgg lool te mosuñu koo jël saison bi weesu la ñu ko jël yéen waa Angleterre nag gëj ngeen a jël coupe lool waaye bu leen xaddi am ngeen ay gone yu baax ndax kat bu ñu xoolee Angleterre googee ci atum mille 2018 demi final coupe du monde la ñu toogee atum 2020 ñoo final euro bi quart de finale coupe du monde bi weesu muy ci atum 2022 dem nañu ba quart de finale loolu nag bu mu tax ngeen xaddi li ma bëgg moo di ngeen gëm seen bopp bis dina ñëw ngeen jëlaat coupe indi ko fii ci Angleterre loolee la Pep Guardiola xamal équipe nationale bu Angleterre ñu jugee Londres Angleterre wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve rawatina Dusan Vlahovic le journal bi fësal ca xët njëkk wa yuufe suba bu 18h45 jotee AS Roma bu Derossi la ñuy fekki waa yuufe ànd ak Maximiliano Allegri bëgg-bëgg bi ñu am moo di am ndam ca match boobee mën a am trois points yi loolee bu ñu ko defee rek dinañu valider seenub tike maanaam saison bi ñu nekk bu jeexee dinañu qualifier dem ca ligue des champions ba jaloore joojee la waa Juve ànd ak Massimiliano Allegri bëgg a amal suba bu ñuy jàkkaarloo ak AS Roma bu De Rossi journal bi tamit ñëw na ci waa Bologna bu Thiago Motta ñoom démb Torino lañ doon jàkkaarloo dañoo témbo 0-0 la match bi jeexee waaye kat waa Bologna ñoo ngi wéy ba léegi di am yaakaar ngir qualifier dem ci ligue des jooba ndax ñoo jël quatrième AS Roma mi jël cinquième juróomi poñ la ko Bologna bu Thiago Motta rawee ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa AC Milan rawatina Sergio Conceição mi ñuy bàyyi xel la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Sergio Conceição nag doomu Portugal la mooy tàggat Porto waa AC Milan ñoo ngi koy bàyyi xel ngir mu wuutu foofee Pioli bu dee waa Napoli moom bëgg-bëgg bi ñu am moo di su Pioli jugee ci AC Milan ñu xaatimal ko contrat yóbbu ko ci seenu club mu doxal bu dee wujju AC Milan yi di waa Inter ñoom tey jii Sassuolo la ñuy jàkkaar lool Inter nag dégg nañu daali ba noppi maanaam jël nañu championnat bi waaye li ñu bëgg moo di battre ay record kon tey jii li ñu bëgg moo di jàkkaarloo ak Sassuolo defante ak ñoom waaye gone gi tudd son waa Inter a ngi koy bàyyi xel gone gi ailier bu mën la muy def la ma nga ca waa di doxal gone gi doomu Islande la waa Inter bëgg-bëgg bi ñu am moo di xaatimal ko contrat jëlee ko ca Bologna yóbbu ko ci seenu club mu doxal ñu jugee Italie wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay waa Real de Madrid rawatina Luka Modric le journal bi fësal ca xët njëkk wo première balle de match tey jii nag bal bu njëkk bi tey la ñu koy teg doxal Cadiz le Real de Madrid di jàkkaarlool bu 14h15 jotee waa Real de Madrid li ñu bëgg moo di jàkkaarloo ak kadis am ndam ci seen kaw ba noppi ñaan Barcelone bañ a am ndam ci kaw Girona su loolee amee rek dinañu dégg daali maanaam dinañu nekk champion kon Madrid day ñaan am ndam waaye tamit mi ngi ñaan Barcelone baña am ndam su loolee amee dinañu nekk champion waaye bu fekkee loolee am na nag dinañu amal ab fête ci monument bi leen ñëpp xamee muy Cibeles waaye ki leen di tàggat di Carlo Ancelotti nee na su fekkee nekk nañu champion tey jii waa dëkk bi ñooy dem feetu seenu champion waaye jour yi kenn du dem ca Sibélès ndax ñun dañuy waajal match bu ama am solo muy match retour demi-finale Ligue des champions Bayern de Munich le Real de Madrid war a jàkkaarlool moo tax Carlo Ancelotti nee na suñu nekkee champion tey jour yi kenn du dem ca Sibélès waaye tey jii nag match bi war a dox ci diggante Barcelone ak Girona xeex bu rëy la ngir ñaari palace ba ca njëkk moo di ku am ndam rek mën ngaa dëggal sa bopp ci deuxième place bi deuxième palace bi am na solo lool beneen bi moo di deuxième place boobee ku ko jël super coupe d'Espagne bi bu ñu koy jongante yow di nga ca bokk kon nag ñaari xeex la tey jii ci diggante Barcelone ak Girona loolee la journal bi xamle bu dee waa Atlético de Madrid ñoom tey jii Mallorca la ñuy jàkkaar lool ñaari club yi nag seeni bëgg-bëgg du benn bu dee waa Atlético de Madrid ñoom li ñu bëgg moo di am ndam gën a dëggal seen bopp ngir mën a qualifier dem Ligue des champions bu dee waa Mallorca moom jamono ji seen toogaay beggandiwul naam wàcceguñu waaye kat jege nañu lool ngir relégué maanaam ngir wàcc li ñu bëgg moo di ñoom it am ndam ngir wéy di am yaakaar saison bi ñu dëgmal incha allah ñu des ci liga bi ñu jugee Marca yéene jël aas yéene kaay Arda Güler la journal bi fësal ca wu njëkk wa doomu turki bi ànd ak waa Real de Madrid ñoo ngi am yaakaar bu rëy ngir tey champion su fekkee am nañu ndam ci kaw Cadiz li ñuy ñaan moo di Girona ak Barcelone Barcelone bañ a am ndam ca match boobee su loolee amee rek waa Real de Madrid dinañu dégg daali maanaam dinañu nekk champion 2023 2024 foofee ca Liga e-sport ba waaye Carlo Ancelotti mi leen di tàggat nee na dina indi ay coppite yu bari équipe B bi mën nañoo wax ni mooy football match boobee loolee la ñuy xaar tey jii ci diggante Cadiz ak Real de Madrid bu dee Thibaut Courtois moom dellu si ñëwaat na mën naa am ay minutes ca match boobee bu dee Arda Güler moom day départ titulaire ca match boobee mu nekk ñaareelu yoon nag ñu koy départ loo titulaire mu tegaloo waaye su fekkee depar na titulaire nag mooy nekk yoon bu njëkk muy départ titulaire ca Santiago Bernabéu ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport choc bi ñuy xaar foofee ca Barcelone tey jii le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Barcelone ànd ak Robert Lewandowski ñooy jàkkaarloo ak Girona ànd ak Doof bi match boobee nag dafa am enjeu yu bari yu ca nekk maanaam dafa am ay bëgg-bëgg yu bari yu ca nekk ba ca njëkk bokk na ci xeex ngir jël deuxième place u Liga e-sport bi beneen bi moo di xeex ngir mën a dem ci super coupe d'Espagne ba ndax ku jël deuxième super coupe d'Espagne bi yow kenn du la ko nettali kon xeex bu rëy la tey jii waaye beneen xeex bi moo di ci diggante doof bi mi ngeen di gis ak Robert ki jamono jii doomu Ukraine bi moo jël meilleur buteur foofee ca Liga ba am na dix-neuf but doomu Pologne bi di Robert ki am seize but kon nag xeex bu mag la ci diggante ñaari attaquant yi ngir ñuy wéy di am yaakaar kenn ci ñoom nekk meilleur buteur bu saison bi jeexee ca Liga ca iSport ba ñu jugee esport jël Mundo Deportivo match bu rëy bi ñuy xaar tey jii ca Barcelone googe war a dox ci diggante Girona ak Barcelone la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa super duel xeex bu mitti nag la ñuy xaar bëgg-bëgg yi wuute nañu lool ca matchu ale ba nag Girona moo fekki woon Barcelone gañe ko ñeenti bal ci ñaar loole nag ba léegi mi ngi ci xelu waa Barcelone tey li ñu bëgg moo di jàkkaarloo defante rawatina ci diggante ñaari attaquant yi muy Dovbyk ak Robert Lewandowski jamono ji dañuy dàqante ngir meilleur buteur bi Dovbyk am na 19 Robert Lewandowski am 16 bit kon xeex bi day wëy Xavi nag mi ngi wax ci Robert Lewandowski nee na ëllëgug Robert Lewandowski mën a guma ci wax dara jamono ji dañuy bàyyi ba saison bi jeex ñu xool ba xam dina des fii beneen saison bi ak ñun am déet journal bi tamit fàttewul Barcelone féminin bi maanaam seen jigéen ñi tey jii bu 18 heures et demi jotee Granada la ñuy jàkkaarlool amee ndam dinañu dégg daali ci liga bi maanaam ñooy nekk champion ci liga bi nga xam ne jigéen ñi la ñu ko jagleel su loolu amee nag mooy doon neuvième fois maanaam juróom-ñeenteel yoon Barcelone gu jigéen di jël liga bi waaye suñu ko jëlee tamit mooy doon juróomeelu yoon yu tegaloo ñu koy jël waaye su loolee lépp amee nag dinañu mën a waajal coupe de la reine bi maanaam coupe bi nga xam ne